lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te jaaxal ñëpp yal na ko suñu boroom génne te képp koo xam ne nekk na ci yow itam mu mu wéral la kum kum na kum na képp koo xam ne itam yaa ngi am loo coroon ragal yal na suñ borom dàq ba mu jeex tàkk ci àdduna si ginnaaw loolu itam ñu tàllaat suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom sañ-sañ te mooy borom man-man li nga xam Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba te at ñu xam ne itteem lépp. mooy doomu aadama yi ak lislaam yàlla na ko suñu borom gën a kàttanal gën koo jox ak man gën koo jox taat ba lépp loo xam ne yéene na ko ci doomu aadama yi yéene ko ci lislaam ji mu def ko te def ko na kawee nag njortam te ñu ànd koog moom ak mbooleem suñ njabootu sëñ Tuubaa gépp képp koo xam ne itam li nga xam ne mooy sa itte mooy lislaam yàlla suñ borom gën a dëgëral gën laa jàpp na lan ba li nga xam ne yéene nga ci yéene nga ko ci lislaam nga def ko ci defe ni ko kawe sa njort te ànd koog ña ngi ko war àndal te dajee ñu ngërëm ak suñ borom ginnaaw loolu nag ñi ngi doon waxtaanee li nga xam ne mooy ni lislaam tabaxee société ñi nga xam ne na lislaam tabaxale société société jullit ñi nan la ko tabaxee ñi ngi tàmbalee woon ci ni mu njëkk a def mooy da leen a waxtu leen a boole ci ñuy wax ñi ci loo xam ne da leen di yëgal waxtu wu nekk ne ñoom ñii am na luñ bokk loola nag ñu def ko ci mu def ko ci loo xam ne ñi dend ñoo koy ñoo koy def am loo xam ne da koo def ci ñu bokk ab ji dëkk ñoo koy defandoo am loo xam ne ñi bokk ñu bokk njulit gépp ñoo koy defandoo li nga xam ne ñoo bokk ñoo ñoo denn ñoo koy defandoo mooy julli yi juróom xam nañ ne ñëpp koy bokk di defandoo ci jenn jàkk te bu fekkee ne ñoo ko bokk defandoo danañ yëg ne am na loo xam ne lu ñu boole la ginnaaw loolu itam mu def loo xam ne da koo def ngir jul dëkk ñu bokk ci dëkk bi ñu mën cee daje loola mooy jul ak julli ajjuma ak lu mel ni ki julli korite ak tabaski di amaat loo xam ne defaat na ko nag ngir jullit ñi bokk jullit ñi nag ci àdduna sëpp war cee mën a daje bokk di yëg li nga xam ne moom lañ bokk ndax lislaam buñ ko xoolee fi nga xam ne moom la tabaxee li nga xam ne mooy mooy mooy mooy li jullit ñi bokk fi mu ko tabaxee mooy ci conscience la ko tabaxee ak yëg-yëg yëg-yëgum nit ki nga xam ne mooy jullit bi loolu nag yaakaar naa mooy loo xam ne moo dul mën a dara waru ko mën a naaxasaan ndax loo xam ne ci sa pas-pas la jóge mu doon loo xam ne itam sa yëg-yëgu bopp moo la ko moo lay moo lay forcé ñi nga def ko loolu yaakaar naa lay tax nga dett ci ginnaaw mën naa mën naa mën naa néew loolu war naa mën a war a war naa am loola nag moo tax bi nga xamee ne taxawe leen loolu ci li nga xam ne mooy jullit ñi waaye nag lii taxawoon jullit ñi mooy ab société mooy mooy ak mooy famille famille itam mu joxe mu mu def ci lu mu def ci definu rëy rëy woo xam ne dana soññe di gën a di gën a xiir xiirtal ci taxaw tabax ab societé tabax ab famille boo xam ne dana jaar ni mu war a jaar dox ni mu war a doxee ndax lépp dalaa dalaa woon ne yow mi nga xam ne yaay yaay kii taxawal ab famille xamal ne day xéewal la gëru xéewal gu rëy la ci yow ndax am na loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ko te bu boobaa yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne yaa ngi koy jàppale ci loolee mu wax mooy tanakahu fa inni mukaasirun bikumul umama mi nga xam ne yonent bi wax na ne kat na ngeen di denc ndax man kat dama bëgg bu ëllëgee sama xeet bu mu bokk ci xeet wu gën a néew ci kanam suñu borom kon nag loolu dalay won ne la kon yaa ngi boo ko boo ci jub ci jubloo yaa ngi def loo xam ne yaa suñ borom yaa ngi dimbale yonent bi sa alayhi wa sallam ci loo xam ne bëgg na ku ku ko ku ko defal ñaareel ba itam ñu xamal ne la sa doom jooju nga xam ne moom nga ko moom nga moom nga moom nga ba nga fondement famille bi moom nga ci am sa doom jooju bu ko fi yàlla teelee jëlee yiwu yiwum bépp ci yow lay dellu si bu fi ko fi yàlla bàyyee itam boo ko jaaralee ni nga ko war a jaarale yiwam bépp boo fi jógee ci yow lay dellu si waat loolu lépp doon loo xam ne lu lay gën a xiirtal ci nga gën a taxaw ci taxawal li nga xam ne mooy mooy famille ci taxawal ko taxaw yi nu gën a rafet ñaareel booba loolu jàllee itam yonent bi sa maanaam suñ borom defaat loo xam ne da koo def ngir bëgg lépp loo xam ne moo war a niru ak yàq wala lépp loo xam ne moo war a niru ak ak ñaaw ci ak ñaawoo ci diggante jullit ñi loolee itam mu wut ay barrières yoo xam ne dana tax loola du war a mën a am loola nag bokk na ci barrières yi nga xam ne wut na ko nga xam ne da koo def ngir bëgg ñaawoo du mën a am ci jullit ñi mooy yi nga xam ne da ko araamal ak yi nga xam ne da cee soññe yim ci soññe nag bokk na ci xam nañ ne dëkkandoo lislaam soññe na ci ci ci soññin wu rëy boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na di wax ne man de jibril damaa ñëw di ma dénk ci sama dëkkandoo ci moom na war a doxaleeg moom ci doxinu rafet ba ba ma mujj jàpp ne dëkkandoo koy yëmatul ci dëkkandoo waaye dafa doon koo xam ne mbokk la moo xam ne bu ma fi jóge woon sax war naa mën a doon loolay lislaam da koo def ngir bëgg ñe bëgg li nga lépp loo xam ne war naa mën a andi ak ak ak ak ak ñàkkante wala loo xam ne war naa mën a andi ak ak ak lu ñaaw ci biir su ci biir société l'islam loolee mu mu mu mu mu dàq ko beneen ba ca teguwaat itam mooy bokk na ci li nga xam ne soññ na ca te loola yi li mu ca jublu itam mooy bëgg rek lépp le lépp lu rafet rek ak lépp luy àndi ak yàqo bu mu am ci jullit ñi loola mooy boo amee gan mu wone ne gan googee nga am na nga ko teral ngir loola sa sa teral ko li muy tekk mooy day wone ne yow yëng nga bu baax a baax li ngeen bokk yëng lislaam ji ngeen bokk sa pas-pas itam rëy na te pas-pas boobee li koy feeñal mooy sa conscience bopp moo la ca moo la ca poussé ba nga def ko loola itam di loo xam ne lu am solo la ñaareel ba itam ñu gis yoo xam ne araamal na ko te li ko tax mu araamal ko yëpp itam buñ ko xoolee bañ ak ñaawoo ak ak ak ak lu ak loo xam ne day indi rek ak yàqoo ci diggante société bi ci diggante jullit ñi moo tax mu def ko loola bokk na ca xam nañ ne lislaam tere na fen tere na itam jëw tere na itam rambaaj tere na itam wor kenn tere na itam nax kenn lépp ak yeneen yoo xam ne lislaam indi na ko te li mu ko tax mu indi ko mooy bëgg société maanaam bëgg société jullit ñi ñu doon ñoo xam ne dara luy indi ak yàq dana nekk dana nekk si dana nekk seen diggante looloo tax mu tere kon nag ñu xam ne kon ni yoon wi nga xam ne moom la lislaam jaar ngir tabax société jullit ñi bu fekkoon ne ñu ngi koy bàyyi xel bu baax danañ xam ne yoon la woo xam ne wu xereñ la ndax mi ngi tàmbalee ci benn nit ñëw ci famille jóg jóg ci jóg delluwaat ci ci société bi ci boppam loolu lépp mu fàggul ko loo xam ne day tax ñu war a mën a ànd war a ne war a nekk benn war a jàppoo war a tax xam liñ bokk loola lépp nag kon du ñu won ne ki ko tër day mooy ki nga xam ne moo xam doomu aadama képp dëgg ndax mooy ki ko bind kon nag ki ki bind aadama doomu aadama moo mën a xam li nga xam ne moom la doon doomu aadama ajowoo moo mën a xam itam li nga xam ne mooy musal doomu aadama te loolu suñ borom moo ko def te def na ko ci lislaam mu doon kon doo xam ne lu mat a bàyyi xel la mu mel ni nag kon buñ jógee buñ jógee ñun doomu aadama yi di xalaat ne am na yeneen xalaat wala am na yeneen philosophe yoo xam ne war nañ noo mën a jariñ ci suñ doxinu àdduna day mel ni kon dañoo xamul li nga xam ne moom nañ lislaam defal ndax bu ñu ko xamee day danañ xam ne lislaam amul benn bunt wala benn porox ndoll boo xam ne bàyyi na ko ngir lenn luy mën a yàq société jullit ñi mën faa jaar nag lu am solo la lu mat a bàyyi xel kon mu mel ni li ci des nag mooy dañoo war a gën a góorgóorlu ci jàngi jàngaat tax tabaxin wi nga xam ne moom la lislaam tabaxee jullit ñi moom la tabaxee maanaam société bi jullit ñi ñu gën koo jàngaat gën koo bàyyi xel ndax loola mooy tax ñu mën a xam fu ñuy teg suñ tànk loola mooy tax itam société bi mën a dund ci dundin mi mu war a dund loola mooy tax itam ni ñu war a ni ñu war a jàppoo ñu jàppoo ko loolu itam mooy tax ni ñu war a ànde ñu ànde ko mooy tax itam ni ñu war a dimbalante ñu dimbalante ko kon mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ndax suñ borom moo ko def te suñ borom xam na li nga xam ne moo baax ci ñun xam na itam li war a mën a indi ci ñun ak yàq lépp te lépp bàyyi na ko xel kool nañ gën a delluwaat ci gën a jàngaat bu baax a baax lislaam ni nga xam ne ni la tabaxee société bi jullit ñi te di ko dox te fas yéene ko fas yéene ci dox ndax loolu mooy li ñu jëriñ ci àdduna ak alaxira ñu ñaan suñ borom nag mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom ak man te moo xam doomu aadama ni mu war a doxee ak ni mu fa war a jaar fépp loola nag yàlla nañ ci gën a dimbali bañ gën bañ gën di xam waxtu wu nekk li nga xam ne moom moom lañ war a bàyyi xel ci ni nga xam ne moom lañ lislaam jàngale ci nan jullit nañu nan lañ war a ànde ak nan lañ war a tabaxee ab ab famille ak buñ bëggee tabax société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 ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ngir jot sunu ay vidéo di di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international